aousubillahi min alcheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin nabiil amin wa ala alihi wa ashaabihi al akramin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yowmi ddin wa radiallahu an cheikhina wa xudwatina wa wasilatina ila rabbina ahmad ibni muhammad ibni habibillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu aq di leen baal aq di ñaan yàlla tabaaraka wa mu boole ñu jéggal di wax ne rekk mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan ci seen rajo xasida online ak ci seen télévision bi nga xam ne moom lañuy ñuy wax Touba Monde bi TV ñu ngi leen di nuyu di wax ne rekk ñëw nañu ak yéen ci ay jataay yoo xam ne dañ ko war a séq ak ñëpp ñiy déglu ak di seetaan mu war a doon jataay bu ñu tuddee daaray soxna Asta Walo ëttu soxna Asta Walo euh, di soxna soo xam ne defe naa ni jëpp jigéen duñ tuddal soxna Asta Walo te nga bëgg lu baax war ngaa gëm ni ab naanukaay a ngi noonu boo xam ni képp kuy wut lu baax mën na ko faa jële mu nekk jataay yu nga xam ne ñu ngi koy tàmbaleeg yéen ci jamono yi e, fës yéen ànd ak yéen ndegam soob na yàlla tabaaraka wa taala mm, ki ngeen di seqal kàddu gi mooy soxna gi benn taalib Serigne Touba rekk bu dëkk fii ci Touba euh, su ko defee ñu xam ne rekk soxna Asta Walo mi ñu tuddee jataay bi mu di ëttam doonoon na koo xam ne ëttam ba yaatu woon na te rëy dajale woon ñu baree bari waaye lépp lu baax doon fa balle moom nag ngir ñu xam ko rekk mooy sëtub maam maaram la di waajuru soxna jaaratullaahi Mariama Bousso waaye di waajuru sëriñ Bousso bi Bousso euh, moom lañ dénkoon ku ñuy wax sëriñ Mohamed Bousso te ñu gënoon koo xamee ci ma Bousso moom lañ daan wax ma Bousso aw Mbaay nga xam ne moom it sëtu maam maaram la waaye askan wi li muy am am solo nem dunde woon moo ëpp solo lool lañ gën a soxla bi nga xamee ne judd na ci néeg bu sell boobu bokk nag ca mag ñu yàgg ña lool ñu yar ko yaru lislaam bu mat sëkk te yaru lislaam suñ ko waxee rek mooy jàngal nañ ko waaye tarbiye nañ ab xolam ba am gëm-gëm yu baax a baax waaye itam tàggat ko ba nga xam ne ak bëggam day tege ci bëggug sunu borom tabaaraka wa taala tàggat ko it ba lépp lu muy bañ day fekk yàlla bañ ko euh, loolu moo ëpp solo ci yar bu ñuy yar doomi jullit waaye bi ci des mooy yar aw yaramam itam jëmmam ba nga xam ne day mën a taxawe taxawaay yi ko lislaam sant yépp ca tàmbalee ci jaamu yàlla ak jëflanteeg doomu aadama yi la yàlla booleel euh, yaram day am solo ngir nit mën a def lu mel noonu moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ni booy yar nit fexeel ba ñetti parteem yooyu nga yar ko ba mu mel ni nga xam ne noonu lañ koy séentoo mooy xolam ak xelam ak jëmmam xolam wax naa léegi ne ngir mu am gëm-gëm yu baax ak mën a bëgg ngir yàlla bañ ngir yàlla jëmmam wax naa ne ngir mu mën a taxawee jaami yàlla yi nga xam ne yépp moom lañ ko sant waaye itam buñ ne xelam nag mooy ngir mu a dajale ay xam-xam yoo xam ne ci la yéwénale euh, yooyu nga xam ni mooy yi ko war soxna Aswaalu biñ ko yaree noonu moom it mu jëfandikoo yar ba bu baax a baax ci ak dundam daadi taxaw taxaw mu ci xam-xam yim xam yépp nag tàmbalee ko ci alxuraanul karim mi ballul waayu xam-xam yi teg ci yépp xam-xami diine yi nga xam ni mënut a ñàkk waaye teg bépp jumtuwaay buy may nit ki mu mën a dégg diineem waaye man koo jàllale ci ñeneen bam noppee dafa taxaw temm ci num ko jàllalee nag ba képp ku ca yàlla boole nga mën faa tibbee xam-xam moo tax mu yoroon daara ju mag lool daara joo xam ne ay kàngam yu mag ci réew mi ay kàng ak i fóore génne nañ fa yu góor nag ak yu jigéen ngir bañ yaatal dëgg dëgg dëgg mën nañ tudd te sëñ bu sóobe miñ tudd sànq muy doomam moom soxna Asta Walo moo ko jàngalal boppam li ëpp ci xam moo ko ko jàngal sëñ bu sóobe it doy nañu xam ab dayoom ci xam-xam ñu xam ne rekk mooy ku sell kooku nga xam ne àggoon na ci xam-xam ak dégg diineem ci jaamu boroomam ba yàlla jox ko cër bu toll ni moom bu ñaanee yàlla sunu borom day nangu lem ko ñaan te loolu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu moo ñu ko leeralal moo ne bi yanam bi dee bëgg a wàcc ci kawam sunu borom dafa ne ko bokk na ci li tax du mën a gën a sotti mu nekk biir tuubaa ak it sëriñ bu soobee di dund ndax bu sëriñ bu soobee ñaanee yàlla gi ko te kon dootu ci am lim ci doon wut waaye bu nekkee biir Touba it day bërëbu kaaraange. natt yi du ko fa mën a fekk loolu rek doy nañu xam ne ci boroom maqaama yu kawe yàlla bokkoon te waa waajuram wii di soxna aswaalu moo ko jàngal niñ xame lool nag ci lislaam ne bari na borom xam-xam yu mag yu ñuy tudd ci réew ci diine génn na réew mi diine rek d'une manière générale te ñooña seeni yaay moo taxaw ci seen xam-xam mën nañ cee tudd ko ñépp xam imaam Malik radiyallahu anhu mi boroom ngir mu leer mi nga xam ne ñun ci la ñuy dundee suñu diine yaayam sonn na lool ci ab xam-xamam waaye imaamul Buxaari yi mi ñépp di dégg muy nettalikatu xadis bu mag te bokk ci ñi gën a wérle xadis ndax boroom xam-xam yu ëpp dëppoo nañ ci ne saxiixul Buxaari yi mooy delluwaayu xadiis bi gën a wér yeneen yi topp ci ginnaawam Buxaari yi moomu waajuram wu jigéen moo taxaw temm ci nu mu jànge euh, ba def ci lu bari ndax waajuram bu góor fekkewut loolu niki noonu fii ci sunu réew mii nag bari na fi mag ñoo xam ne seeni waajur yi jigéen leen dalal jàng bañ sori ñu doog a dem daara am ñoo xam ne ñoo leen wéyalal seenum njàng bañ mokkal kon soxna Sawaale it noonu la def njabootam moo leen jàngal soxna Jaaratullaahi Mariam moom it moo ko jàngal jàngal nag ñeneen ñoo xam ne bi yoonu murit taxawee sax ñoom ñi ngi ci weneen yoon nekkuñu ci biir murit gi waaye xam-xam yañ amee tey ba di ca jariñu di ca jariñe soxna Asta moo leen ko jox dañuy wax ne ku xir la woon ci wut lu baax ak nu ko mën a amee lépp lum xam ne day maye yàlla rek lu jafe-jafe daan gar bakkanam ci am ko moo tax njàngaleem moom nga xam ne xës na xam ne yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dafa ne xayrukum man taallama al quraana wa allamahu tax na jaraloon na ko lu bari waaye ginnaaw xam na ni bi ko yàlla bindee jigéen la ko def te jigéen am na yu bari yoo xam ne mënu ko moo tax dafa mujjoon mel ni ku soppi bindu boppam ba xaw lay nuroog jëmmi góor ci njàmbaar ci nëbbutu ci sàmm dañ da daan sol jàllaa bi takk laxasaay kaalawu ba ku ko séen doo xam góor la jigéen ngir mën a dugg ci biir dongo yi di leen firil lim leen di firil te kenn du am ci moom looy xalaat ci naan jigéen wër def lu mel ni waaye noonu la sonne woon it ci yar njabootam nag yarin yoo xam ne day dëppook nature bi ñu dëkk nga xam ne du nekk ku gëm ne dañoo war a jàng rek waaye waruñoo liggéey mbaam mu ne mën nañoo liggéey te bañ a jàng déedéet defutoon noonu da leen booleeloon jàng ak liggéey ba tax ñu àgg fi ñu àgg mel ni ñu mel ñëpp xam ne rek buñ la waxee soxna jaaratulaahi Mariam ni mu nekkee woon ci kër ak li mu daj ci kër ci liggéeyu yaram ak ci njàngum xam-xam ak jàngale danga xam ne ki ko yar jàmbaar la woon ci domaine boobu moo tax muy soxna su mag su yaatu ginnaaw lool waaye yaatu kuufaay uuf ñu baree bari ñu amal njariñ seen réew ak seen diine waaye it boot ñu baree bari ñu amal yi eh, njariñ seen réew ak seen diine kooku mooy soxna Asta Waalo waajuram góor ak waajuru sëriñ Mor Anta Sali ñoo bokk benn baay niki maam Anta Njaay Mbàkke mi ñuy dégg mu nekkoon ak soxna jaara ci kër moom it soxna astawaalo moom moo ko yar te seen ñaari waajur yee bokk benn baay muy maam maaram kon moom dafa nekkoon koo xam ne melokaanam bi mu amoon ak qualité yi nekkoon ci moom tax na mbokkam yépp wóolu woon ko ci yarloo ko seen njaboot ba tax na sama bàjjen la woon gu mag a mag gu dajale woon ay jigéen ñu bari ñu nekkoon ca moom yar leen taxawu leen ba yóbbu leen ci kër yañ war a nekk ñu saxalal fa lislaam garab yu mag meññatal ko fa meññet moo xam ne ba tey jii dañ ciy wey di jariñu kon daal kooku mooy soxna Asta ci gàttal moom lañ tuddee seen ëtt bii nii ñu leen commencé tey nga xam ne ëttub soxna Asta kon buñ ko waxee dañuy yaakaar bu baax ne war nañ fee mën a jële xam-xam waaye war nañ fee mën a jële itam ay melokaan yu baax Euh, kon noonu lañ ko fa yéene di àndeeg yéen incha allahul karim euh, di ko mm, def ay waxtaan yoo xam ne ci diine lay dellu waaye dana bàyyi xel dundin wi su ko defee ne ñuy jéem a jàngat lépp lu ñuy dund naka lañuy ñuy fexee ba mel melokaan woo xam ne diine te ciy d'accord te duñu am ay jafe-jafe ci dund ko Eh, damay wax toujours nag ne buñ ne ëttub soxna Asta Walo mbaa ñu ne ëttub soxna jaaro wala meneen mag jigéen mu baax li muy firi mooy dañuy xamal ne kon nekk jigéen yàgg naa am cir ci diine ji yàgg na ci am cir yàgg ci am wàccuwaay eh, alxuraan mi nga xam ne mooy jàngale lépp lu jëm ci lislaam leeral nañu lu baree bari ci taxawaayu jigéen war a am ci diine ji dañuy dégg ayaat yu bari suñu borom di ñu xamal ne def lu baax góor ak jigéen ñoo ci yem ku ko def yàlla moo leen di boole di fay ñoom ñëpp danañ dégg mu ne man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun yàlla nee ku def lu baax moo xam góor nga wala ngay jigéen te bi nga koy def nga am ci gëm-gëmu suñu borom a ko bëgg moo tax ma di ko def suñu boroom neen dinañ la dundal dund gu teey waaye dinañ la fay la gën a rafet ci li nga doon jëf bu yow ma xiyaame wax na feneen nit aaya boo xam ne ci maanaam moomu la rek fa man yaamal min asalihaati min zakarin aw unsa fa ulaayka yadxuluuna aljannata wala yuzlamuuna naqiira su ma juumut defe naa noonu la nee ñi nga xam dañuy def lu baax moo xam ay góor lañ wala ay jigéen ñooñu bu ëllëgee dañuy dugg àjjana te yàlla du leen tooñ lu tol ni ki xooxu tàndarma eh, xam nañ ne sunu boroom moom lu waay jëf dana la ko joxaat ndax moom du tooñ waxoon na feneen ni wama rabbuka bi zallamin lil abid waaye itam noon la xadis jàngalee ne soxna yu baax yi amoon ba tey jii seen yoon wa ku ko topp dangay am lañ doon am ci ay cër yonent bi sallallahu bari na lum daan dénke jigéen ñi waaye bari na cër yum leen daan jox daan na feeñal seeni ndam bu baax a baax ngir ñépp xam ne jigéen dafa am wàll ci diine ji xam nañ bu baax ne soxna Aysatu bintu Abi Bakar mi nga xam ne soxnaam la woon moom Seydina Muhammad daan wax ne xudu nisfa diinikum min haadihil xumayra seen genn wàllu diine de leen ko jële ci lu xonq lu tuuti li nga xam ne soxna Aïcha mooma mooy turandooy soxna Astou Walo mii nii euh, waaye itam yonent bi salaas mu daan na fisal bu baax ne keroog sulxul Hudaybiya day su fekkonte ni du ummu salamata bintu euh, ummu salamata mi nga xam ne mooy hind di soxnaam bu du woon moom kon dana doy waar làmbaay ñaaw comme niñ koy waxee ndax jullit ñi amoon nañ nattu bu toll ne seytaane gendiku leen ba yonent bi wax leen mbir ñu ne tekk bañ ko wuyu te loolu musiba mu rëy la bu dalee saxaaba yonent bi waaye ki tax mu lijjantiku rek mooy soxna Umu Salamata ndax bi naa Ahmad jaaxle ci loolu dugg ci biir dalukaay bi ne ko ah sama saxaaba yi tey jaaxle naa ci ñoom mu ne ko lu mu doon mu ne ko dama leen wax ne rendi leen te ngeen watu waaye kenn wuyuwuma kenn jógul fa mu toog kenn siggiwul fa mu sëgg te loolu musuñu ma koo def soxna mu salamata ne ko ñi de niñ la bëggee ak niñ la gëme bëggeel gi ak gëm gi sax moo waral ñu mel ni ku la mere ndax sart yi la xuraj su teg moo metti te diis ci yow looloo leen naqari ndax nangu gi nga ko nangu waaye boo génnee yow ci sa bopp bañ leen wax dara dem rek rendi daal di watu danga leen gis ñoom it ñu jóg def ni yow ndax xam naa ne ñu la gëm lañu ñu la bëgg lañu tamit naka la Seydina Ahmad génn def lool rek ñoom ñëpp ku ne jóg daal di def nam ko waxe woon moo tax daan na ko ko xamal bu baax te di ko ko waxal naan Hind di Umu Salamata bu dul woon moom bisub keroog dana xaw a doy waar waaye itam ku mel ni ki ñuy wax Umu mu bint Milhan ku rafetub taxawaay la woon ci wooteb lislaam bi ba nga xam ne moom ci boppam nit ñaan na ko ngir def ko soxna mu ne ko man sama can mooy nga dugg ci lislaam soo jébbuloo doon jullit loolu mooy sama can ndax bu dee ci askan awma lu ma lay bañe bu dee ci jàmbaar awma lu ma lay bañe bu dee ci nangoo yor njaboot it awma lu ma lay bañe xam naa la te sama mbokk nga waaye nag des na ndax dangaa duggul ci lislaam mu ne ko lu ne mu gaaral ko ko rek mu ne ko loolu lépp soxlawuma ko soo duggee ci lislaam daal mooy sama can yow ba nga xam ne kooku ngir bañ ñu ne soxna see ko tax dugg ci lislaam dafa nekk waaw danaa xalaat dem ab diir mu daal di dugg ci lislaam ba pare nag doog a dellu siwaat ne daf koy ñaan soxna nga xam bi mu ko laajaatee lan mooy doon sa can guñ la war a jox dani ko li ma la waxoon bu njëkk ba tey mooy sama can mooy dugg nga ci lislaam kon loolu laa la defal mi sama can ba mu denc ko noonu la amee woon ngëm ci lépp lu ko dal ci lislaam rafetlu ko du ci am benn tiis mbaa naqar mën a muñ lool buñ leen doon lim duñu jeex saxaabiyaat yoo xam ne kenn ku ci gën a jàmbaare ci wàllu pas-pas kenn ku ci gën a xër ci bëgg yonent bi kenn ku ci gën a nangoo sonn ci jaamu yàlla nga ne moroom jala moo tax bi ñëwee ci taabin yi ne yi loolu am na fa waaye bi ñëwee ci taabin yi taabin yi ne yi loolu am na fa bu dee ci wàllu xam-xam bu dee ci wàllu jaamu yàlla bu dee ci wàllu bëgg alxuraan bu dee ci wàllu rafeti jikko fu ci ne rek danga fa fekk jigéen ñi ñu bay ca lef moo xam ne daanaka mën nga wax ne xaw naa feesal waaru lislaam te bu ñàkkoon dana widd widd bu rëy ci biir lislaam moo tax mu am solo sunu borom tabaaraka wa taala mi bind nit ñi moom dafa wax ne góor ak jigéen ñépp am cër dafa ne góor ak jigéen ñépp am cër li rijaali nasibum mimma iktasabu wali nisaa i kon lim ca teg moo am solo mooy ku ne ci ñoom na laaj ngëneelul yàlla te wut ko suñ boroom mën na ko ko may moo gën ku ne ci ñoom di toog di yéenee am cërub moroomam bu kenn ci yéen yéenee am cër ba sa moroom am góor bu mu toog di xemmee ma nuroog jigéen baa muy mel ni moom ndax du cër boobu lañ ko fàggul waaye jigéen nit bu mu toog di xemmee ma mel ni eh, ku góor ndax du loolu lañ ko fàggul jamono nag indi na loolu bul bouleversé lépp li sunu borom rangé woon nim ne woon na ko jigéen ñi mel léegi ñoom dañ koo xeeb ba yóotu ni góor ñi mel mu am góor ñoo xam ne ñoom it dañoo wàññiku nañ bëgg waroon a mel ñu ba ko fa di wuti ni jigéen ñi mel loolu nag baaxul ndax soo planifié woon yow mii nit dara def say tracé ba mu egg lu ne nga teg ko fi nga ko bëgg a teg jàngat ko gis ne bu demee nii ba yegg dana baax nga dox dox ba ca digg ba. nga ne naa ko soppiwaat wëlbati ko soo tuul doo yem ci li mujj du baax waaye la yaa weesu woon sax day yàqu loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal ci suñu diine ji ba nga xam ne kenn duñu ko wëlbatil ba li fi renversé woon di mujj di eh, di di tourné loolu dara jaru ko te musiba mu rëy la yàlla nañ ci yàlla musal kon soxna yi ba tey jii des na ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di jéem a xeeñtu tànki mag ñooñee Eh, te suñ borom tabaaraka wa taala newoon na mag ñi fi newoon di def lu baax gëm yàlla lool te di ko sonnal seeni sët yi mujj ginnaaw te bu ñu nee seeni sët nag duñu jaar ci ñoom kese ci askanuk deret mooy rek génération boobu jàll na ba ci topp mooy seeni doom bi ci toppaat mooy seeni sët kon bu ci toppati rek ci sëtaat yi ngay bokk te suñ borom foofu lay waxe waaye waxewul ci sëtuk askan mu ne ñi topp seen ginnaaw noonu te di leen jéem a roy ci njub aku ngëm suñ borom moo leen di dabal mag ñooñee bu doon ne sax seen kàttan matu ko yàlla dana leen ko dabal bañ mën koo jariñoo moo tax mu ne alladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim wama alatnahum min amalihim min shay kon eh, ndekete jamono lu man mën a wëlbatiku nit ñi ci biir rek ñoom lay neex ñoom ñu soppiku waaye buñ soppikuwul yàlla du leen soppil dara inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin xataa yugayiru ma bi anfusihim muy lu baax li fi ne fii nit ñi soppi luñ ko seen bopp def safaan sunu boroom du leen soppi lam leen daan may ci lu baax waaye safaan yi fi nekkit fii nit ñi jéemu ñoo taxaw ci soppi ko def ko muy lu baax suñ boroom it def leen di seetaan lam leen daan wàññi muy wéy di leen ko wàññi ndax moom yàlla dafa maandu te it day wax toujours ne kullu nafsin bi ma kasabat rahina kenn ku ne li mu fàggul boppam rek ci loolu lañ ko tayle mooy moom ci boppam moo jël boppam tayle boppam ci ay jëfam ak li nga xam ne moom lay liggéey toujours moo tax biñ demee ba jamono yegsi fii yàqu-yàqu yi bare ci àddina mbir yi li ci soppi ku bari lool borom bi tabaaraka wa taala waxoon nañu ko ci alquran bu yàgg te day mel ni lam doon wax léegi lañ koy door a gis zahara al fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi naas waaye yàlla am fulla lool ne lim ci jublu mooy ñamal leen lenn ci li ngeen doon jëf li yuziqahum baada alladi amilu kon nañ bàyyi xel ne àddina bi ñun nit ñi la fi yàlla teg ngir ñu defar ko te it nag yàlla moom du ñu yabalal malaaka yi ñu ñëw di ñu ko defaral lim dénk malaaka yi dénk na leen ko mooy ña yor taw ba ña yor ngelaw la ña ruux ya ña yor leneen waaye bu ñu ko wàcceelee lim ñu ci war a wàcceel li ñuy defaralaat li ci des ñun lay doon defar boobu nag suñuy jikko suñuy comportement suñuy jëflante daf ci am solo surtout suñuy gëm-gëm daf ci am solo lool day tax su ñuy def la ca des sunu borom di ñu wéy di kàttanal ñuy man di ko def ni ko bëggee tabaaraka wa taala te ci loolu la sunu njariñ di nekk tey ak ëllëg moo ñuy may ñuy am ndam ci lépp loo xam ne dugg nañ ci su ko defee loolu daal nañ xam ne mooy li ñuy ëppal njariñ bari na nag yu ñu wër yu dul yooyu waaye nit ku nit a dëgg sunu borom defal lam xel wan la safaan wan la lu baax dangaa war a jëfandikoo sam xel te tànn lu baax ñun ñépp a xam ne fii ci àddina rek munoo toog ci bërëb di tëdd ko jóg di dem ak dikk ba weer dee nga ñëw ne nañ ma jox sama saleer ndax duñ la ko jox waaye mënoo ne it damay nekk ci bërëb ñu ne ma del def lii ma ne lii moom neexuma lee moo ma neex moom laay def ba bis ñëw nga ne directeur société booba wala service booba na ma récompenser déedéet ndax fañ la nekk loo woon nekkoo fa woon kon sunu borom itam mooy directeur société bi mooy chef service bi waaye itam mooy ki supérieur ñëpp tabaaraka wa taala yamu ci sax waaye mooy ki sàkk ñëpp ñu ci nekk ci ronam kon nim ne ni la bëgg ñu def ko àddina mënta yàgg yàgg ba ñu jàpp ne a léegi kat mën nañ koo soppi di def neneen mu di ñu amal njariñ déedéet na masa wax ne nañ ko mel rek loolu moo ñuy amal njariñ Eh, Seydina Omar ibn Xataab daan wax ne ñun de ay nit lañu ñoo xam ne ci lislaam lañu yàlla terale woon kon saa buñ demee di wuti ji teraanga feneen fudul ci lislaam su wattuwul yàlla danañuy toroxal nahnu qawmun aazana allahu bil islaami fa ayna mabtagayna al izzata bi xeyri lislaami azallana allahu aw kama qaala radiallahu kon ñu xam ne lislaam moo fi ñëwoon di sauveur bu mag bi nga xam ne yonent bi Muhammad salaa salaam la ko yàlla jox mu indi ko jaar ko ci biir alquran ngir mu sauver nit ñi ñu jóge ci lëndëmu ceddo lëndëmu kéefër lëndëmu réer waaye mën a nekk ci leeru ngëm leeru sellte leeru ragal yàlla loolu danañu dimbali lool ba tukki bii ñuy tukki mu mën a gudd lool comme mën naa gàtt maa ngi bëgg a wax ñu gudd fan mbaa ñu gàtt fan tukki bi mooy jaar gi ñuy jaar ci biir àddina di dem yóbbal bi ñu ciy jariñ mooy ñuy ragal yàlla képp ku ragal yàlla nag dana ko jaamu ndax sunu borom tabaaraka wa taala moo ne woon wa tazawwadu fa inna xayra zaadi at taqwa bu dee dañ ko firi rek firi mu jàmp ci aj màkk la jëmoon waaye bu dee dañ ko tawil muy tafsiraam day firi tukki bi ñuy tukki ci àddina liñ ci war a yóbbuloo képp kuy tukki bëgg nga yóbbal li ñuy wax argent de poche jamono laajatul yanu ay bagages di yor ay cere ki ay sungufa ki sànqal waaye njëg gi ngay yor muy argent de poche foo wàcc ci gis loo soxla nga jënd ko ñun li nekk suñu argent de poche pour ñu tukki ci tukki bu gudd bii di àddina moom mooy ñu yor ragal yàlla fu ñu jëm suñuy commerce nañ ragal yàlla suñuy liggéey ci industrie yi nañu ragal yàlla suñuy liggéey ci mass média yi nañu ragal yàlla suñuy jàngale alxuraan nañu ragal yàlla te fu ci ne ci bërëb yooyu ma tudd ak yeneen yi ma tuddul ragal yàlla mën na faa am comme ñeme yàlla mën na faa am te fu waaye def ragal yàlla rek danga ci am pay gi la suñu boroom diggoon ci yiw waaye fu fi yaay waaye nekkee ku ñeme yàlla mun na am nga doon xaar lu rëy faf lu tuuti dikke la maa nga doon xaar lu neex faf lu naqari fekk la fa yàlla nañu ci sunu borom tabaaraka wa taala musal ci daraje Seyxna euh, Ahmad al Xadim ci daraje yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na Seyxna Ahmad euh, su ko defee damay wax ne rek dénk bi nag na ñëpp xam ne ñun ñoo ci njëkk jël sunu wàll ba noppi keneen ku ci soxla te yàlla jox la ci nga jël li wóor mooy jariñu danga ko def ndax ndénkaani yàlla la ndénkaane yonent bi Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waaye ndénkaane Cheikhul Xadim la ak mépp mag mu baax moo xam ne nekkoon ngi ci eh, lislaam di liggéey ñoom ñëpp seen wax jan wax la benn discours lañu am te moo taxit suñ koy joxee ñenn lañ ko jëmale ci ñoom muy ahlul islaam waa lislaam rek lañuy jox seen discours ñoom te it benn discours lay doon même bu doon sax alphase yi mën naa wuute muy baat yi mooy yiñ jëfandikoo waaye maanaa mi moom benn lay doon kon ñu xamee ko noonu alxuraan dafa ñëw di teg si sell yu kenn du laal kenn du ki soppandiku waaye suñ boroom ci boppam tibb ca joxaat ko Seydina Muhammad mu jox ñu ko muy xadis mag ñi itam bi ci diggante alxuraan ak xadis ñenn ñi bind ay woy ñenn ñi bind ay wesar waaye lu ci ne boo ko tekkee muy menn maanaam kon day mel ni rek ni ko benn boroom xam-xam bu mag di waxee Euh, bu ñuy indi courant suñ ko jëlee ca usine ba nga xam ne mooy defar électricité dañ koy wàccee ci ay post courant pour mu woyof di ko doog a wàccee waat ci ay compteur ci biir kër ngir mu mën a woyof ba agsi ci porte prise yi ñu man di ci branche li di def liñ soxlaa def kon ñu xamee ko noonu alxuraan ak xaddis ak waxi mag ñu baax ñi noonu rek la demee lépp li ñuy wax ñooy bokk lu ñuy digle benn lay doon waaye li ñuy tere it benn rek lay doon te ñaari baax amut comme ñaari bon it amut baax genn la bon itam genn la sunu borom bi ñu bindee jox ñu xel daf ñu waxoon ne na ngeen tànn bu ngeen ci bëgg ngeen jël ko maandu gi dafa tax mu ne yàlla du forcer kenn ci diine waxoon na it naa mu ne ko sañoo forcer kenn ngir mu gëm da ko ko jox ci comme genre laaj. ni ko afa anta tukkurihu annaasa ndax danga bëgg forcer nit ñi pour ñu gëm fee nag mu ne la ikraha fi diini xad tabayyana rushdu min al ghayy fa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billaahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam fisaama laha nee na kenn du forcer nit ci diine yàlla daal leeral na njub leeral ndëngte koo xam ne weddi nga ndëngte gëm yàlla jàpp nga ci buum gu dëgër gi nga xam ne du fecceeku waaye ñu xam ne nag ku fa bàyyi yàlla gëm na caaxaan gëm ndëngte ah buum gi nga jàpp day reweñ ci ku di dagg te bu daggee ci kàmb goo xamut ngay daanu ci yàlla nañ ci yàlla musal te defal ñu njub sàmm ñu aar ñu bañ mën cee taxawe ni nga xam ne noonu lañ ci war a taxawe eh, defe naa ne li des ci liñ am ci waxtu xaj na bariwut noonu waaye eh, dañuy wax ne rek lii moom jataayu ubbite bi la woon rek incha allahu dinañuy wéy di ñëw ak yéen ci yeneen jataay bu dee soob na yàlla tabaaraka wa taala ñu ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu wala nga di ñu seetaan sunu borom tabaaraka wa taala dimbali la ci sa diine te boole ñu ko ni ko yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ñaane allahumma ainna ala dhikrika wa shukrika wa xusni ibadatika loolu mooy yow yàlla yàlla nangu ñu dimbali ci ñu di la tudd te di la sant fetal nuñ lay jaamoo waaye itam di sàkku tam ci yéen ngeen ñaanal ñu ñun tamit ñu mane ko noonu waaye it mën a taxawee liggéeyu lislaam bi nga xam ne kenn ku ni ci ñun te di jullit am nga ci wàll ca kem fa nga toll yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu jullit ñi ci zaahir sunu boroom xamal ko ne dafa war a wuy ji boroomam ndax mission bi mat na li ci des da ko war a bàyyi ñim àndaloon te yar leen ngir ñu def continuité bi bis boobee ca Arafat discours bu yaatu boobee xëy ba guddi jot yendoo fàttali ak waaraate waxoon na bam jeexalee ne alaaxal balaxtu ndax du jottali naa saxaabaam yu teddee ne ko wallahi balaxta yaa rasulallah لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده jot li nga bu baax yow yonent bi yàlla bi jot li nga lettre bi la yàlla yónni woon ci ñun waaye itam laabiire nga sa xeet wi ngir ñu bañ koo wàcc waaye itam jihaar nga ci yoonu yàlla kem nañ ca war a jihaade ba tey lii di ñëw ni mu daal di leen di jox dénk bu am solo mooy alaa fal yu ballixi shaahidu minkumul xaa'iba kon daal lii ma leen doon wax ak li ma indi woon ci alxuraan ak li ma def ci sunna ngeen gis ko ku ko xam ku mu yegg si fi yow na ko jottali ci ña nga xam ne yegg woon ci ñoom loolu rek moo ñu ci bàyyi ñuy jéem a na bi du mën mën du xam-xam sax waaye yéene la ak bëgg liñ ci am ni muy tuutee ñu jox ko ñi nga xam ne xaj na àgguñu ca ñeneen ñi ñu sut itam ñuy xaar ci ñoom ñoom it ngir ñu jox ñu li nga xam ne ñun àgguñu fa loolu kese mooy il lay jàpp ci liggéey bi di sant mbokk yi ñu ko àndal ñépp di leen gërëm di ñaan suñu borom gën leen dëgëral ba ñoom it yéene yu rëy yi ñu am ak xalaat yu rafet yi ci yaatal woote bi ñu gën koo mën a taxawee jërë geen jëf ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp waaxiru daawaana alhamdulillah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.